dafa am lu mag ñi daan am lu mag ñi daan defari dund bu dund bëggee yàqu ñu ni nañu ko delloosi moo di jikko nit lu rab di def rekk dana ko def wante jikko tax na du ñaawe ci wàllam wante lu rab di def rekk dana ko def moo tax bu jikko dàqoo mu di rab walla yàlla nee na mu yées rab ci ni mu ko waxee ci alquran ko nag soo ko bëggee amal bul bareel sa soxla waaw maanaam fukki soxla yu woyof ñetti soxla yu am fullaa ko gën Mm-hmm. dafa mat a xàmme ndax waxtu dafa jafe moo tax fukki soxla yu amul fayde ñetti soxla yu ëpp fayda moo ko gën Cheikh El Hadj moo ko wax dinaa di wax ni yi mu wax yépp am na njëriñ waaye bii it am na njëriñ Mm-hmm. rawatina boo dëkkee ci réewum aada ndax dañu ni ñetti kàttan a fi nekk benn bee gën parce que yow rekk benn bee ci tegu parce que yaa keneen rekk bu ñetteel bee ci yées waaw bu ñetteel bee ci yées ndax dafa yiwul mhm. bi nga bokk yow rekk mooy sa dënn di wax ak yow nga jóg di jëf walla mënuloo ko keneen di wax ak yow nga jóg di jëf waaw walla mënuloo yooyu ñaar ñu jël yet taxawu la nga jëf boobu baaxul uh-huh. baaxul benn nga jëf ngir sa fulla ci sa dënn lay jóge walla nga jëf ngir keneen ndax naw nga la mu la wax waaw walla nga jëf ndax yeta la jëfloo ማለት ዴታይ waaw da jikko rek am solo moo tax loo def te jikko lalu ko yàlla gisu ko wa inna wa inna wa inna ankara al aswaati la sawtu alxamir waaw kii gëddaatee tabarkalla di gëddaate rekk yàlla nee na ko mbaama la a kawe ëppul di mhm. la gën a kawe baat te ëppul di mbaam nag mhm. moo tax loolu Cheikh El Hadj Omar wax lu mat di bàyyi xel la lu mu wax sax mat na bàyyi xel yàlla ko defal xam naa bokk na ci puukare Sayid Cheikh Ahmed Tijaan yi am taalibe yu mel noonu wallaay ah cheikh defal jawahir mu defal rimaax waaw ñu ni ko lu tax mu ni wurus guntu ko koy wattu ah cheikh defar jawahir mu def rimaax ñu ni ko lu tax mu ni wurus guntu ko koy wattu waaw cheikh def mashahid mu def maqasid loo ci man <laughs> wallaay ndeysaan ka xaalis cheikhi wal gédawi moo tax mbiram lu ama am solo la mm-hmm.